digle na nit ñi campagne ba xam ne xel ba ba bés bu ñu àll jeex na ngeen campagne voté ñu ngi leen di encouragé. jërëjëf kon kan ngeen doon xaar kan ngeen doon xaar kan ngeen doon xaar. ñu jox le président Ousmane Sonko mu wax ak yéen.

ñu ñëw fii ci Waalo tertu bi la première fois ma gis ko ñu ànd dugg ci biir dëkk bi jaar ci marché bi ca ni am na graine boo xam ne ji nañ ko fii ci Richard Toll te bu soobee yàlla dina meññ ba egg fi mu war yegg élection présidentielle 2024 man maa fi ñëwaloon le candidat Bassirou Diomaye Faye presque ci heure bu ni mel ñu amoon mbooloo bu mel bu toll nii ngeen teeruñu fii te mu mu nekkoon ci weeru koor en plus ngeen ndogu toog di ñu xaar di ñu xaar ba deux heures du matin jël engagement ak ñun te respecté ngeen engagement bi ndax fii ci commune de Richard Toll donte. am na ay kilifa yu féete ci beneen boor yu fi nekk waaye duma ngeen leen duma gu leer nañ ba Richard Toll na ci score yi gën kawe ndax romb na score moyenne nationale bi di 54 pour cent kon ñun amuñu seen fay mënuñu leen wax lu seen confiance waaye wax leen confiance boobu du ngeen toog ba ne am nañu déception ci li ñu wóolu woon nii loolu du musaam la ca des nag la ca des nag dañuy dëgmal lu am solo xam naa ni ñenn ci yéen sax ëllëg bu ngoonee dañeen doxantu ba ndar ñëw fekkee waxtaan bu yaatu biñ foora seq ak yéen mu jëm ci pôle bi li ngeen di joytu ci suuf si

dañoo soofantal assemblée nationale ba sénégalais jàpp nañ ne assemblée nationale gars yi nelaw ak tàccu lañ fa nekkee mais assemblée nationale dafa bokk ci cër yi ëpp solo ci ci réew mi ci kaw nag ñu yóbbu fa député ñu yóbbu man de nekkoon naa assemblée nationale te benn député dong la Pastef amoon ma nekkal ko fa. est-ce que matoon naa député honorable DJ Fall mi n'est l'Assemblée assemblée nationale est-ce que on a député honorable Aïdem Boy, mi ne fii l'Assemblée assemblée nationale est-ce que matoon na député Les problème assemblée nationale Moi, je suis majorité mécanique ou robotique mooy ñoo xam ne parti bi ñu wokk bu dee moo yor nguur gi luñ leen wax suñ leen ne woon sax voté leen benn loi boo xam ne benn sénégalais amatul droit sol yére bu weex dañuy dem voté ko loolu moo ne woon problème assemblée nationale waaye assemblée bi xam naa ni di ngeen jox président Bassirou Diomaye Faye une majorité écrasante waaye majorité boobu majorité boobu di doon majorité parti politique majorité njëriñ réew mi la fay nekkee nu ñu bëgg bëgg bëgg président Bassirou Diomaye nu ñu bëgg bëgg son premier ministre Ousmane Sonko bu dee dañoo yóbbu assemblée loo xam ne du jëriñu réew mi xam ngeen di assemblée nationale. bu seen député yi nekk assemblée nationale bi Guy Marius Sagna nekk assemblée nationale boo xam ne di nga fa fekk Cheikh Bara Ndiaye di nga fa fekk euh, Abidjan di nga fa fekk procureur Alioune Ndao di nga fa fekk di nga fa fekk ngeen xam ne ñoo ñëpp bañkat lañu jàpp ay principe la ñuy doxee xam ngeen di doon assemblée boo xam ne assemblée yaa ma neex la kon la révolution a commencé te yéen yéen a ko porté a xeex xeex bi yéen taxaw suñu wet bañ ñuy essayé faagagal ba ñuy essayé rey projet bi yéen yéen a ko kon nag tubaab dafa ne qui peut plus peut le moins qui peut plus peut le moins mooy bi muy gën jafe bu dee dékkuwoon nañ ko du tey lay jafe ci ñun. réew mi dinañ ko defar ba mu ne cocc coow li ngeen di dégg yëpp coow li ngeen di dégg yëpp mooy ñi nga xam ñoo def naka sudul noonu ci réew mi te xam ni rek réew mi ñu ko jub jubal jubbanti te bi ñu toogee ba léegi ci loolu la ñu nekk ñoom ñoom ñooy ngeen teel mooy jeexal fi mu toll nii la koy dogali nag bokk na ci assemblée nationale bi ñu jëm assemblée ko teel ma ko su ma la nee defal nga def bu ma nee bàyyi xam ngeen ni ñaari at yi ñu weesu assemblée nationale depuis di ko jiite woon nga xam ne dafa nekkoon rek bu gars yi ñëwee télécommande bi def bés ne ko defal bu def bu télé bayil bu bay ba ci député yi nekkoon ci majorité ñooñu batuñu woon assemblée nationale. kon yéen la jeunesse su ngeen toogee fii ba heure bi du ñu xaar xam ngeen Sénégal ñoo na leen de noonu mu dem ñoroo nag ñu tibb leen ko par 10. pour xam ñu naka la ñu jàppale leen ñu liggéey bi ñoom ñooy yàlla xam na ni yéen yéen a yéen lay bénéficier benn dugub ñun ak li ñu gone pour dund ba am juróom fukki at yàlla may na li nga war a am mun a koo découvrir ci àdduna loo xamatul woon waaye yéen ndaw ñi ñun yéen ñi ñuy xeex. sama doom yi ma jur samay rak ak yéen ñi nga xam ne ni juree sama doom noonu laa leen xoolee. bëgg nañu dans quelques années ngeen nekk ci Sénégal goo xam ne wute na lool ak li ñuy dund fi mu loolu moo tax ñu ne gars yi mënuñoo bokk ñoom pour ñoom politique looy jëriñoo la pour feesal sa poche ñun pour ñoom politique jaamu yàlla la sonn la ngir réew mi baax askan wi gis ci boppam. dem leen jëli carte électeur dem leen jëli carte électeur yi bu amee benn benn ko jëli te nag bu ni parce que Sénégal dañoo mus a gëm ni élection présidentielle moo ëpp solo bañ ci taux de participation yi élection bu nekk ay 65 pour cent mais élection législative day wàccaat ay 55 pour jàpp leen ni bee ci jóge ni ngeen jàppoon noonu la jox ngeen président Diomaye moitié bi mu téye ko waaye mënul voté ay loi mënul voté budget bi mënul def li mu bëgg parce que loolu il mu jaar ci assemblée kon est ngeen ko jox ne xaaj bi kon dimanche le 17 dama bëgg 6 heures du matin voté budget bi mënul def li mu bëgg parce que loolu il faut mu jaar ci assemblée kon est-ce que di ngeen ko jox beneen xaaj bi kon dimanche le 17 dama bëgg. fees fa tël teel a na ngeen teel dem ci bureau de vote yi fees fa dell teel a voté waaye na saytu parce que fii ba Matam gee ñu jóge dafa doon zone yoo xam ne dafa jege frontière te gars yi xam nañ seeni i tappale ñun nag en tant que ndax léegi yàlla def na ñun ñoo yor liggéey nañu jël matuwaay yëpp police gendarmerie keneen ak keneen ba ci douane pour kenn bañ a jóge feneen fu dul Sénégal naan mi ngi ñëw dugg si pour voter si waaye li ma daan wax bi ma nekkee opposition ku dëkk ci koñ bi xam ne kan mooy waa koñ bi ak kan moo fi dëkkul kon ku bokkul ci koñ bi ñëw ci bureau bi ne dafa bëgg a yéen yéen a war a jël seen matuwaay pour loolu bañ a am la des nag lu ñuy waxtaanee ndar la waaye jeunesse du Sénégal seen avenir fii la ne ci réew mi fii ci pôle bi ñu ne pôle bii mooy pôle nord pôle bi am na gaz bi nekk fii am na jën pôle bi am na suuf su bu ñu mën président Diomaye ak man gouvernement ma jiite on a besoin de la jeunesse sénégalaise dañoo bëgg fu ñu tourné gis leen suñu wet fu ñu leen woo ngeen wuyu ñu si ngeen bu jégale loolu man maa leen ne balaa 2029 di ngeen gis les premiers Sénégal dina décoller définitivement te dara dootu ko arrêté kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne seen président bu baax waaye nag dimanche 17 xam ngeen ñaata laa bëgg fii xam ngeen ñaata laa bëgg fii minimum 80 pour cent laa bëgg fii